mu nekkoon jàngat kii di Sayer Kébé si jafe-jafe yi nga xamante ni lii di foudre daal dina ko indil askan wi rawatina fii ci capital bu Sénégal ginnaaw bi ñaari nit ñàkkee seeni bakkan askan wi di yokku wàllu ci nguur gi ngir ñu mën a sécuriser yenn bërëb yi nga xamante ni askan bu bëri dañ fay daje lu ci mel ni jàkk yi wala li nga xamante ni moom moo di école yi ak lii di euh, mosquée yi maanaam bërëb yi nga xamante ni c'est des lieux de culte Mamadou Euh, Babacar ci euh, ñaari ayu bés lu toll ci fukki doomu aadama euh, ñàkk nañ seen bakkan juróom benn yi fii ci ndakaaru la pour moo ne yàgg nañu xalaat ni xëy na ndakaaru bokk na ci dëkk yoo xam ne muy loo xam ne xëy na croyance populaire la ñuy yàgg xalaat ne ndakaar moom bokkul ci espace yi foudre di laal waaye lii xew jamono ji wone ne le contraire oui et puis bëri na également sivernage à chaque fois que bu nawet jotee c'est vrai bu fekkee biir géej la Euh, ñetti mool yi si gaañu euh, daanaka biir géej la woon ñu man a comprendre mhm. am na sax loo xam ne am na nu ñu ko waxee peut-être bu sensibilisation amoon mhm. peut-être mën na bañ a demee noonu parce que ki xew ki ki faatu parcelle itam dafa mel ni ci wetu géej la ko foudre bi laale voilà mhm. mais xam nga bu fekkee foudre man na rey ay Tivaouane Peulh maanaam si région wu Dakar c'est extrêmement grave man dama yaakaar ni zone boo xamee nag bu fekkee moom paratonnerre rek moo dem mën a tax foudre bañ a dal si euh, nit ñi mhm. je crois que c'est extrêmement grave parce que bakkanu nit dafa dafa am solo mhm. dafa am doole euh, te j'ai l'impression que nag ñun suñu dëkk yi mhm. euh, maanaam defuñu attention loolu si si si dee nit yi di ñàkkee bakkanam yomb na trop yomb na trop valeur dund waaw dund valeur dund kiiw ñu gis dans les médias européens bu amee rek benn xale waxuma sax gaañu mais bu réer rek. mais da ngay gis presque alerte générale la. pendant vingt quatre heures média yi loolu la ñuy wax bu ñàkkee ba kenam nag moom waxatuma ko. mais fii Sénégal avec les accidents de la route avec foudre bi. comme ni ko waxee dafa dafa dem ba banal. ñu voilà dafa banal te loolu nag affaire bu doy waar la. Hmm. bon je crois que sensibilisation bi manqué na am na il y a boo seetloo. amoon na sensibilisation bu mat bu ñu doon def ci affaire foudre mhm. doon wax nit ñi nu ñu war a comporté woo yooyu yëpp ñu ngi koy wax mais mhm. wax sax parapluie yi ñuy utiliser bu mu am weñ mhm. maanaam di wax ak nit ñi ñuy moytu di toog ci zone yi nga xam ne taw mais depuis quelque temps j'ai l'impression que loolu amul waxuñu ko bu fekkoon sensibilisation amoon en plus bien sûr mesures yooyu de protection des des citoyens nga xam dañ ko war a def mais bu ñu ko defee également dañu war a ñu xam bi naka lay rey noonu mais vraiment ay Kolda yaa ngi koy dégg souvent début bu ñëwee nag ba nga xam ni yaakaar nañ ni protection bi fii la war a gën a mate parce que bâtiment administratif tamit fii la ëppee mhm. mais bu demee ba nga xam ni Tivaouane Peulh mhm. wala à côté ay Kër Momar Sarr rek mhm. ah, di rey ay nit je crois que loolu war nañ see jóg nekkul daal loo xam ni baax na si si dëkk bi e, Hélène mu mel ni suñu euh, sukkandikoo ci li Babacar wax dafa mel ni protection civile defuñu seen liggéey Dakar entre 2012 ak 2018 505 252 paratonnerres rek la fi installé mu mel ni mu doyul ba waral jéey yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ayu bés waaw maa ngi door ci euh, massawu ak jaal mm-hmm. njaboot yi nga xam ne yëpp ñàkk nañu seeni euh, mbokk mm-hmm. wala seeni doom ci phénomène u foudre bi ndax nag foog naa ne jaaxle am na ci mbir moom mm-hmm. bu ma xoolee ndakaaru parce que dañ daan dégg foudre bi dëgg la Sénégal benn la yemale dafa war a am dañ daan dégg foudre bi dans les régions de l'intérieur mm-hmm. ñun ñii su ko Moustapha Diakhaté seede bañ nekk assemblée interpellé nañ plusieurs fois ak suñu collègue yi nekk dans les régions les ministre par rapport à l'installation de paratonnerres mm-hmm. dans les régions ah mbir moomu wax loolu mëtt euh, foog naa ne loolu xaw ma fu ñu ci toll mm-hmm. waaye li tax a mooy tey xew nañ ne yematul sax si région de l'intérieur yi dafa ñëw ba diggi Ndakaaru mhm. parce que euh, mool yi ñaari mool yi nga xam ne ñu ngi dëkk Kayaar ñu ngi jàll seeni mbokk di leen ma saw mhm. ñoom fii ci beewu Soumbédioune bi pratiquement la leen foudre bi fekk mhm. Parcelles Assainies am na fa woon Peulh am na fa barki démb nee nañ plage u BCEAO am na fa samedi Sacré-Cœur ay jeunes samedi bi à Sacré-Cœur muy jouer football ak le même jour samedi à la à la à la plage de la BCEAO loolu nag war na tax sénégalais tiit ndaxte waruñu mënuñu imaginer ne maanaam installation paratonnerre yi kon am na fu mu sooxee soit installation paratonnerre yi sooxe na benn wala est-ce que entretien paratonnerre yi am est-ce que def nañu ko parce que su nawet daan ñëw da daan gis ñi ñuy seetee caniveau yi curé leen seet fil yi yànq ak poto lamp yi yànq nu ñu leen di gérer balaa nawet bi di yegsi noonu la doon xool certainement paratonnerres yi ndax nit ñi mënuñu ko xam fu paratonnerres yi nekk pour jéye yu mel nii du am bu lii nag amee rép à répétition ci benn semaine nii moins de deux semaines à Dakar kon massa ña nekk ca ca ca ca biir Sénégal mm-hmm. massa ñi nekk Euh, fin fond di Fouta. ñi nekk ay tam ay Tambacounda ay Ziguinchor ak feneen. mas ay Fatick ay Casamance massa leen. Mhm. Mhm. man jotuma ci xool mais li ñu war a xool est-ce que tey protection civile jox nañ ko moyen yu doy. ñaata xaalis lañ prévoir pour jënd ay paratonnerre. 2012 ak 2018 def nañ ci benn milliard ak lu teg ci. ngir dégg naa ñuy wax un milliard cinq. Mhm. ci def ay paratonnerre. mais dégg naa. excuse-moi joxe est-ce que nombre bi ñaata ñaata lañu installé si si paratonnerre dégg naa sax ci li ma liir jotagum liir fi ma gisee un milliard cinq yi ci temps yi gis naa ni ren ji cinquante paratonnerre la ñu prévoir xaw ma am na wala am moom dafa mel ni il euh, paraît que cinquante paratonnerre lañ prévoir ate mhm. loolu nag war na tax nit ñi tiit mhm. parce que bu fekkee ni que nag ñun le minimum boobu mhm. ñuy wax émergence xaw fu ñuy émerger ci loo xam ne euh, paratonnerre nga xam ne ba depuis maam ya dañ daan wax ne ah Dakar doo fa euh, doo fa dégg doo fa <laughs> dégg loola <laughs> ndax paratonnerre hmm. tey ñu yeewu tey ah kon hmm. émergence bi daal doy na waar man daal bëgg naa <laughs> hmm. man su ma sañoon euh, si sama yéene la bokkoon ñu woowaa protection civile ñuy ñëw fii ñu wax ci mbir mi parce que mbir mi nag mu ngi egg foo xam ne benn nit bu ci faatu sax ëpp na fukki nit gaañu ci ñaari waxatuma ci diir bu gàtt bi biir mm. ndakaaru juróom benn nit mm. journée samedi bi mooy mooy mooy mooy mooy démb mm. ñaari ñaari xale mm-hmm. donc il faut ñu jàpp ci ak ni ni ko Babacar waxee ñuy sensibiliser nit ñi mm-hmm. wax leen su amee lu ñuy def mm-hmm. ah lan mooy seen mesure de de de protection minimum yi ñu war a am ah, waaye lii su xewee Dakar de waa àll bi moom <laughs> dee nañ très bien euh, président euh, très rapidement rek parce que pour ñu mën jàll ci ñaareelu thème bi mhm. est-ce que au-delà aussi du travail bi nga xam ne moom la protection civile war a def euh, ngir euh, installer paratonnerre est-ce que itam ñun sénégalais am nañu culture sensibilisation di xool communiqué yi météo di génne surtout rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy dem géej ak ñooñu parce que sénégalais dafa mel ni ñun dañu soofantal lépp lu jëm ci wàllu xibaar lu jëm ci wàllu météo itam euh, jërëjëf Mamadou Lamine Euh, pour ma daal koo xam ne da faatu ci paratonnerre ndakaaru déewoo dañu laa rey ku faatu ci para ci mbirum ci tonnerre ndakaaru déewoo dañu laa rey ndax ñun maag ki ay kookoo lan ñun wax dëgg yàlla jàppoon nañu ne mm. dëkku taax moom tonnerre mm. du rey du fa daan <laughs> mm. euh, dama koy dañuy waxtaan ma ne ko ma ne ki tudde dee noppalu dee kooku moo xam senegal saa réew moo xam ne noppalu mooy ku dee réew la moo xam ne ponk ñu maanaam ku fi dee da ngaa noppalu waaw ah, loolu la ñuy wax Sénégal bu ñu nee diw noppalu na mooy diw dee na ça veut dire que kon ñun fonk ñu dund mm-hmm. soo fonk dund nag la ngay gën a jëkk fonk di mooy doomu adama mm. gis nga euh, nit ñi bu ñu wax Sénégal dama wax ne Sénégal nit ñi moo tax ñu naan Sénégal yi tey ci bëccëg damaa toog déglu ku ku bokk ci protection civile mm. muy wax nit ñi lu ñu war a def pour mucc ci tonnerre mm. di wax fii li ñu wërta laal ak bu buy buy tax bu laalu temps sëñ bi doo toog ba fukki nit dee nga doon wax loolu nit ñi da nga leen ci jamono ba loolu ak sigut tàggat tàggat maanaam di wax ni du loolu cest ndakaaru nit paratonné waru fee rey nit que nag fii mooy capitale du Sénégal fii moo nekkoon capitale la Senghor doon wax naan 2000 dana mel ne Paris ñu toog ba 2019 ay ay tonnerre ay fa rey nit mm. loolu ñi fi dee deewuñu dañu leen rey. moo tax ma jàpp ne ah bari ñi nga xam ne war nañoo gëstu. mbirum réew mi maanaam xool alalu réew mi fi ñuy def rawatina ci wàllu sécurité nit ñi war nañoo xool yan sàggan moo am ba lu mel ni am pour mbañ a parce que xam nga euh, gis nga lam souvent ñun waa Sénégal dañuy constat dañuy dañuy wax toujours ci li xew waaye du ñu seet ndeyu mbili ja la ko indi gis nga Mamadou Lamine mm-hmm. ñun waa Sénégal dañoo sàggan li si ànd Diop di waxoon ba léegi man jàpp naa ne mi ngi suñ ko mi ngi suñ biir mooy danay dox ba yàgg ñu taxaw naan ndax tànk mm-hmm. nit kuy doxalee nag maanaam lu ñëw lu ne rek da koy gàddu naan way yàlla na ko fa mu jëm fa jëm gënal fi mu jóge dama ne ña nekk àlaaxira ku ci sañoon desi wat fii pour jàmm bi yàlla <laughs> nañu bàyyi waxu caaxaan <laughs> euh, loo ci sànni Mamadou Lamine xam nga affaire bi mhm. dama fàttaliku France bu Senghor daa wax tout le temps mhm. nee na France ñaar la fa jàng organisation ak méthode mhm. nee na nag c'est ce manque souvent au Sénégal organisation ak méthode lañ amut paratonnerre yi nga euh, kii tonnerre bi ngay wax. benn bi cimetière chrétien yi kii foofu la daanu terrain de football bi nekk foofu. bi ci des zone industrielle fi MTOA nekk fii. ci sama benn xarit mooy le grand industriel bi faatu Barki démb Ahmed Amar ci angaaram la dee la daanu te foofu c'est c'est presque au cœur de Dakar waaw ci port bi ci port bi foofu la daanu defe nga ni ça c'est le cœur de Dakar mm-hmm. cœur de Dakar foudre di fa rey ay nit kii ci terrain nuit de football la nekkoon foudre bi rey ko xam nga loolu mën nañ ne ruu bu demee yàlla la mais ndogalu yàlla gu ne tànk baa nga fa mhm. avion Macky Sall bii buy naaw ñaata paratonnerre la ne la yor avion Macky Sall bi am na ñetti paratonnerre ñaar kanam ak benn ci gannaaw mhm. bien que bu jógee rek tim nuage yi mais l' avion est super protégé mhm. pour ay tonnerre ak quel que soit euh, le nombre de volts parce que décharge électrique la il sa protège boo demee palais koñ bu ne am na paratonnerre boo demee fii Macky dëkk ci géej gi ay paratonnerre du fa jeex pour mm. pourquoi mënu koo wutal Sénégalais te tout le monde dit que paratonnerre ça coûte pas cher très bien ça coûte pas cher nañu bàyyi seen caaxaan yi jël seen bopp def ko Mamadou mm. ñun ñi ci des ñu def leen Mamadou yëf yi dana mas a jeex <laughs> te ku yebu seet Bachir le président soudanais bërki démb bi ñu ko duggee ci kaas mm. muy mel ne golo gu màggat ñu koy àtte règlement de compte dana mas a am ci réew mi entre nous même parce que caaxaan yi ak yàq alal réew mi ak tappalee ak fen yi bari na lool loolu dong laa ci